nuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse sa kaasu kafe nga guux bala ngay naan bay simbalee xam wax la li xew ci réew mi askan ne ca na réew mi quotidien ko xool xam ne fiir dëgg daa am wéetétété ndekete yoo fexe na ba daal di def la nga xamante moo di teg ji lu jëm wi léegi ko yëglekaay ne ma fiiraange gu mel ni kay kenn koo gis daa bàyyi ba ñaareel bii nelaw mu sàcc ab téléphone jël la nga xamante moo di ay photom tas moo tax di am de image yoo xamante ni wujjëm wa dañu ca dung yee waay xalaatu ca lenn lu dul daal di xale bi itam bu amutoon xelum ubbi buntu bi daal génn rek musiba daal am l'observateur xale bi ci wata bi yëgle gi ne waaye ndaw sàmba daal jël loxob xale bi daal ko dugal ci biir tubayam moom chauffeur bi ni ko téel téel ngëbal waaye da ngay seet lii rek yëgle kaay gi ne xale bi daal di ubbi la nga xam ni moo di buntu ba daal génn daw sote ci biti waay gis ay di dox ak moom waaye kii lu mu ëmb moom yemalew ko ci ay yéreem de ca biiram la ko dugal yëglekaay gi ne mel ni ko ëmb doom turbine yëglekaay ne ma ndaw si ci jëmi boppam ci AIBD lanu ko ngoye laa la wax fekk ko ak 100 boulettes de cocaïne yëglekaay gi ne moom la sexoon ëmb ko ca biiram ab sud africaine la yëglekaay gi ne li yémeeti na te doy waar moo taxit ngoyes nanu ko yóbbu ko ca hôpital ngir dindi la nga xamante ni mooy la mu def ca biir ba ca dëgg dëgg waa AIBD ñoo ay waay turbine yëglekaay ne ma taalibi bi itam kaay ma wax la de mer de tax mu daal di def jëf ju ñaaw ji lay yëgle kaay gi nee ni nga xamante ne noonu la ko ab sëriñam doon traité looloo ko naqari tax mu daal di jóg nag daal di nga xamante moo di sëriñam bi lee antenne quotidien yëgle kaay ni ma nañ dem seeti xale bi nga xamante dañ noon daa riir fa nga xamante moo di ca Grand Yoff niki altine gii génn te nu gis ko démb enquête bi ci jëmi boppam écarté na lépp lu jëm ci wàllum enlèvement kenn këfu ko woon mbaa ñu jël ko mbaa nu yóbbu ko fenn laa wax xale bi juróomi am moom MBD ci jëmi boppam nag daa jógoon rek daa di daw di toppi koo xamante ni ab camarade de classe la ku mu bokkal classe ginnaaw këf ga nga xamante moom la kooka téewoon ab gurtam mu dem di ko jëli xam nga fan la fanaan ca kër délégué de quartier ba te cité millionnaire waaye benn escroc ci jëmi boppam nekk ca bitim réew jëm naa sax nax ki nga xamante ni moo di bàyyi xale bi lee di ko laaj lu tolloog 1,5 million ginnaaw bi ko publier ci li nga xamante ni moo di Facebook bi seetetetet fii de mi toll kii de nara naa nax bàyyi gone gi rek naan ko jox ma xaalis ma indi la askan sunu gaal ñu bëri ci ñoom gis ni kat di tukki dong képp rek dong mooy tax ñu daal di def li nga xam ni moo di tekki tax ñuy dëkk géej gi mbaa ñu fas yéenee jaar ca Nicaragua ambassadeur des États-Unis d'Amérique décortiqué na maal ba nag wax na ci mbir mi naqarlu na ko ci gone yi dëkk gaal loo ca gi rek te koo yëgle kaay gi ne le président du mouvement taxaw sunu gox Ablaye Dieng ne na nguur gi jóg nag taxaw jàppale ñi nga xamante ne ñoo di gone yi wutal leen ay formation mbat ma formation yooyu am suivi l'avocat de la boo ne ko bul dem danga koy wutal ci lu mu jàpp ba dëgër bu ko defee mu toog la koy ña jàpp ba mu dëgër te naa xeer bu tii sàkke da cay daru mooy ña ànd ak Sonko ñoom day nee ñu cay le 17 libération yëgle kay ni ma démb transféré nañ ko ca nga xamante ni moom moo di Cap Manuel Ousmane Sonko retourne en prison ginnaaw ay semaines yu bari yoo xamante ni dafa nekk ci sous surveillance médicale Dakar Presse yëgle kaay ni ma Sonko transféré à la prison du Cap Manuel maître Ciré Clédor Ly ne enlevé woon de ci guddi gi ca salle réanimation lañu ko jëlee l'administration pénitentiaire ba yëkkati ay kàddu ni transfert bi nag dara waralu ko lu dul état de santé ci jëmi boppam recommandation bi ka ko def mooy médecin bi koy traité cay mbiram Ousmane Sonko mile tribune yëgle kaay sax taxaw di samp laajam di laaj naan waa ñi faatu woon ci manifestation yi affaire nervi yi xaalisub covid bi koppar yi ñu woon arme yi pour la présidence war a bokk ci élection yi moom Déthié Fall ci li jëm ci wàllum parrainage fi toll nii tembe ginnaawam bandang libération yëgle kaay ma ah kay moom Déthié Fall day xelam dal na ndax am na lu tolloo 127 xanaa matal sëkk xanaa bokk maa la ko wax le temps mooy quotidien yëgle kaay ma Déthié Fall kay réussir na la nga xamante moom moo di ay parrainage am enquête yëgle kaay ma ci wàllum report bi fomm élection yi Barthélémy Dias taxaw na ak waa taxaw ni wane boppam ca Kaasa borom arc yëgle kaay gi ne jàmm rek ko yitteel xawma kan moo taxawul Amadou Ba waaye Souleymane Ndéné Ndiaye moom bokk ci ci élection présidentielle yi ñu jëm collecté na lu tolloog cent douze mille deux pour Amadou Ba mbir bi ni ma waa Benno fi toll ni tembe xam nga bu doon ni mbir mi ay pant la ñoom seen pant fi toll ni ci mauvaise pant dëgg la toll ak fii élection yi toll fii réew mi toll ay weer dong kese sënkam des ci ñu xaw a ne ay jafe-jafe Walf Fadjri quotidien yëgle kaay wax ci attaque gi nga xamante moom la ni hauts et des bas bés bi la jour yëkkati kàddu jox ko ka nga xamante ni moo di Malick Gakou mu ni Ousmane Sonko ci jëmi boppam daa war a bokk ci élection yi bokk na ci li nga xamante mooy sama yéene ak li may xeex Ousmane Sonko bokk dem na banaa ak Sénat bi li fi xew laa la wax ci jëmi boppam rassuré wuñu ñun lu ma sa neex lu ne dina naqari international Sénégal ba woon léegi ko yëgle ka animat woon Silva lay wuyoo moom ci jëmi boppam jabaram jawoon di Aïda Ba ci mu toll ni tembe ci yéeg ak wàcc gu la ñu nekk ni tulleeg màlle Tony Silva ko lii dëgg-dëgg kenn yónneew ko Tony Silva kon kay mën nañoo jàll benn yoon ci weq jiital gi wax ci gone yi ndaw yi yëgle kaay gi ne Amara ak i moromam laay wax de dëgg-dëgg gone yi ay jàmbaar dëgg lan woneeti nañ seen bopp de xale yi laa la wax qualifié nañu wurul jirijee nañ ña nga xamante ne ñoom ñoo di waa Pologne 4-1 lañ leen dóor Idrissa Gueye yëgle kaay gi ne ñetti bal la dugal moom dong record yëgle kaay ni ma waxal ci gaynde yu mag yi Jackson du xam nga ko ba nëgë ni amagul bii ci équipe nationale bu Sénégal de ponkal yi moom Jackson nag jot na mu wone boppam ka mooy ki tàggat jigéen ñi dañ def ko li nga xamante ne moo di meilleur sélectionneur meilleur entraîneur ci wàllum jigéen ñi kooko Mame Moussa Cissé lay wuyoo Ndeye Awa Diakhaté ak l'équipe nationale féminine nominée sunu lamb yëglekaay ne mën nañ wax ci jaagiruur gi mu indil ma phénomène ka nga xamante ni moom la ma indil kooko Cissé lay wuyoo mboolem nag moom foo ko natt weesu na ko provocateur la waay waay ne sa ko wone moom Cissé borom àllu paya borom sos dos cent franc tarkinda waa Lansara ko formé ci digganteem ak Lac de Guiers nag day jàll mbaamu dëpp <laughs> pratique bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jàkkeen jëf jërë ngeen jëf jàkkeen jëf mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi fépp fu ngeen nekk ak fu mën di doon rek fekk naa leen fa nii leen jàpp loxo bégee leen kontaane leen jox leen seen wàcc waaye itam wax ni doolee jën ndox la waaye ñun sunu doole yéen ñi ñuy teewlu la ba tax na kon ñu leen di bégee bu baax a baax di leen kontaane mbokk ñu bég am na dama doon dégg ni soxor am na waaye fiir wala soxor gu mel waaw waaw aaw bi li mu def waaye yéen man da ah baax na man nag du man man daal nag man man daal nag jommi naa man nag suñu Abdou Salam Sarr lii faaw nu def ci ay tegtal ak jàmm waaw waaye xaaral ma guux café gi ba noppi rek ay sa guux leen ah, kaas bee yaatu madame madame le maire kaas bee rëy oh, ah, kaas bee rëy kaas bi may guuxee boo rëy c'est bon c'est yaa ngi dikk ndaw si ñaareel bi laa wax de li mu def a yéemeete doy hmm? aaw bi moo def de ñaareel bi defut damaa juum li mu def a yéemeete doy aaw bi yow bàyyi ba kii di nelaw nga jël ab ab téléphone jël ay photoom yu yu yu yu xawal doy waar di ko partager pour lan ba léegi loolu lan la lay jëriñ moo tax gis ngeen nag gis ngeen nag gis ngeen nag. nit ki nekkal ak moom xaritool ak moom defal moom ak lépp mais sois sois prudent la prudence ah prudent lu mu la xañul du la ko may lu mu la mayul du la ko xañ il faut ngeen fag fuglu waaw confiance am na ah waaye ngeen di contrôler da ciy baax yaa dégg nit ki nag jàmm rek ci la lépp xaj kafal moom def ko ni sa bopp waaye sa téléphone téléphone sa téléphone la tubaab bi bañ na ko ba da cee def code def ci empreinte def ci schéma schéma moom gars yi defatun ko bu njëkkoon lañ ko daan def façon schéma bu ne nga daa gis ci téléphone yi <laughs> schéma ay schéma amoon naa ci koo xamante ni moom lu mu ko sensé sensé ab la la koy def ab la ak lu mu ko sensé sensé ell la koy def ell <laughs> sama benn mag la bu ñuy wax Mamour Fall maa ngi koy nuyu mi ngi noonu ayca mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi ñu jaajëfal leen bu baax a baax kontaane leen ah, waaw maa ko digge de maa ne ku commenté ku ne ku commenté ku ne laa wax ma tudd saw tur maa ko digge Maguette Cissé madam ture borom bës bi ci loo ne ah ndeysaan Serigne Saliou Serigne Saliou sama xarit Serigne Saliou sama lépp Serigne Saliou rek Serigne Saliou dong nag waaw. ah waaw nuyul ma bébé saaliw bu baax béggeel ma ko ah Poulo sama xarit mu ngi nii ji bi baax maa ngi koy biggi bu baax a baax de ca loo daa ne ma tuyee le meilleur merci beaucoup nuyu hmm? nee macha allah Fall Damel kafe gi am na solo jàmm ci yow Papa Diop ah Modou Modou Mbaye Diagne maa ngi koy biggi Mia nee na ma waa Fall nag yow nag Fall nag waa Fall yow mën nga nekk ci ci Sénégal ca ca fa nga ne di góox sa kafe di nu ci bàyyi. ma ne ko léegi loo bëgg mu ne ma yónnee ma ko ci Maroc daal di maa yónnee njëgu ñaari sachet yu 2000 ak benn bu mil francs mu ni moom day simbuleexu ma ne ko baña boo amee fula Cheikh wadd maa ngi lay nuyu bu baax a baax ah euh, Kéba Jam mi ngi nii maa ngi koy biggee Cheikh Omar Diop maa ngi koy biggee Momadou Diaye maa ngi biggi bàyyi Fallou soxna say bata Serigne Aliou Sène Cheikh Aliou Sène sama xarit maa ngi kaa bëggi sali ñi nga sama xarit nga sama mbokk nga nuyu naa la Mor Seck ngi nii ah Baye Modou Yàdd maa ngi koy bëggee Daam Kunta di bëggee yónni Sila sama xarit la waaw waaw waaw non laax bi wax nga dëgg de yónni borom laax bu neex bi dinaa ñëw ma biggee Guèye maa ngi koy biggee Mamadou Diouf maa ngi koy biggee Saliou Fall maa ngi koy biggee bu baax a baax Issa raa ngi nii sama xarit la Omar Diallo maa ngi koy biggee ay fay maa ngi koy biggee bu baax a baax Mohamed mbaw maa ngi koy biggee Mia Diouf maa ngi koy tudd léegi sama xarit la Fatoumata Bintu Diallo Diagne distribution sama xarit la day jaay lépp lu jëm ci ay wàllum euh, matériel électronique ak ay yéreek ay cuuraay ak ay parfum yooyu Diagne publicité la na nga fay <laughs> ah euh, Maodo Kane maa ngi koy biggee maa ngi biggee waa Kër Yaay Khady Events ñoom itam ay jàmbaar lañu ñu ñoom man ci événement Adama Diagne maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di biggee Ibrahima euh, taalibe Serigne Babacar Sy Ah, Abdou Ibrahima kontaan naa ci yow bu baax a baax ah waaw ah, nii la del def sawtu del def voilà nii la del yow del del bind sawtur ndax sa sa sa bi tur wii ci boppam sawtur newu ca Amadou Diagne maa ngi kàbbi gi bu baax a baax Sam Seck euh, di bëggee Serigne Abdou Salam <laughs> waaw waaw nañ bëggee ñëpp rek sama waa ji nañ bëggee ñëpp ah tons nag de tons de moom ah tons mii ah baax na ah mais imaam maa ngi lay bégee bu baax a baax di bégee Binte Sarr di bégee Ngañ Jaxumpa mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi doomi ndey doomi bàyyi ñëpp kontaane naa leen jox leen seen waaj ci waay mbokk yi ñu joxante di daje kon ba subaak jàmm yàlla ko yàlla def ci réew mi askanu sunu gaal seen bokk seen xarit Fall Damel sët la ci seen waaj ji Buur Siin di taalibe Sëriñ Saliou Mbàkke di bàyyi Sëriñ Saliou bàyyi Moodu jëri ngeen jëf